asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dalak jàmm ci xibaar yi diggi bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd Xadijatu ko la seeti boppu xibaar yi lu toll si ñeent fukk ak ñett ci ay ndaw yu ñu yaakaaroon ne dañu naroon a jël gaar pour dem tukki naka jaare yoon bi ginnaaw gi dem sa bitim réew ngir daani seen doole ñooñu naka la ñu jàpp si ñetti tund yi nekk ci biir réew mi muy tundub Sambuya bi Gunjur ak i Katong lii nag xew na alxames ci ngoon te Gambia Immigration Department ñoo leen teg loxo ci matuwaay goo xam ne naka nguurub Gambie baa ngi ko jël pour saafaraal jafe gu nekk ci wàllub diggaloo gi nguur gi naka lëkkaloo nañu ak banqaas bu ñu naan Geneva Center for Security Sector Governance ak ñeneen ci seen àndandoo yi ci aljuma bi ñu mànkoo ngénte naka ab sàtta goo xam ne dañ koy tëral pour dooleel naka liggéeyub diggaloo gi lu toll si ñeent fukk ci ay nit ci arjuma bi nag ñoom ñoo dajaloo pour yokk wante xam-xam tamit wécci wante xalaat ci satta goo xam ne wala sax yelleefu ñi nga xam ne nag ay liggéeykat lañ te ñu nekk di yeewoo ci dundub Afrique saw jant ministre bu ñu dénk wàllum jula gi ñoom naka ñoo ko oote te lii ñu ngi ci lëkkaloo ak seenub àndandoo yi mbokk yi doon bopp xibaar yi ñu taaxirlu bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yu fi jot am ci bëccëgub tey bi alxames ci guddi boor yi fukki waxtu yooyu la ñu wax ne naka Gambia Immigration Department ñoom jàpp nañ lu toll si ñeent fukk ak ñett ci ay ndaw yu ñu yaakaaroon ne naka dañu naroon a jël gaal pour tukki dem sa bitim réew ngir mun a daani seenub doole ñii naka jàpp nañ leen ci ñetti tund yi nekk ci biir réew mi muy tund bu ñu naan Sambuya tundub Gunjur bi ak i Kartong Gambia Immigration Department bi naka si jamono ji ñu ne ndaw ñi naka teg nañ leen loxo te ñu ngi ci seenub loxo pour jàppale leen ci gestu goo xam ne naka ñu ngi koy def jëmale ko ci dajala goo xam ne naka ñu ko dafa naroon na jël gaal gi naka pour dem ca bitim réew ëmpale wuñ ne naka ci weer wala sax ci semaine yi nga xam ne ñu ngi ci mbirum tukki bi naka mu ngi gën a tar ci biir réew mi ndaw ñaa ngi gën a dem te ñu si bari ñu ngi jël gaal yi naka pour dem ci dëkk bu ñu naan Spain dem naka daane seen doole te naka ci at yi ñu nekk tukki gi naka mu ngi rax ndaw ñi naka ñu ngi tukki waaye tamit ñu bari ñu ngi see ñàkk seen bakkan waaye loolu naka terewul ndaw yu bari yoo xam ne naka ñu ngi yeewoo ci biir réew mi ak yeneen dëkk yu ñu wóor ñuy continuer di génn naka di dem tukki ñu si ñu ngi ñàkk seen seenu bakkan seenu ànd jàmm wala sax seenu mbokk ñu ngi leen di jooyte noppeeguñu ginnaaw sax ñàkk goo xam ne naka ñu bari def nañ ko seenu ndaw ñi ci yoon wi terewul naka ndaw yaa ngi continuer di dem moo tax naka ci semaine yi ñu nekk ñu jot a jàpp naka ñeent fukk ak ñett ci ay ndaw yoo xam ne naka yaakaar nañ ne ñoom it benn yoon wi la ñu naroon a jël muy naka jël gaal gi jaaree naka ca Mauritanie dem naka ci fi nga xam ne mooy sa Spain ndaw yi naka si jamono ji ñu ne ñu ngi leen di ñaax pour ñu wàññi seen loxo ci tukki gu ñu nekk di def ndax géej gi naka wóorul waaye naka ci biir loolu waxtaan nañ ak ku ñu naan Mamanding S Dibane moom mu doon naka public relation officer si Gambia immigration department bi moom naka gaara na kàddoom jëmale ko ci mbir mi mu ne ñoom naka dañ leen woo xamal leen ne naka am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi naroon a tukki dem ci yoon ginnaaw gi mu ne ba ñu yeggee naka sa kaatong ñu jàpp ne am na ndaw yu bëri yoo xam ne naka ñu ngi fa nekk mu ne daanaka ëpp nañ ay ñaar téeméer mu ne seenum nit ñoo xam ne naka ñoom ñoo demoon pour jàpp leen ñooñu naka ñu xam ne ndaw ñi naka ñun kese duñ leen mën a jàpp ci leen jota oo naka seen moromi ay liggéeykat ñooñu naka ñoo jota ñëw mu ne waaye naka ba ñu yegg seen ñu bari naka daw nañu daanaka ñeent fukk ak ñett si biir ñaar téeméer gi ñooñu leen jota jàpp ba tey rek mu continué di wax ne si jamono ji naka ñu ngi waxtaan ak ñeent fukk ak ñett ndaw yoo xam ne naka ñooy leen jota jàpp ñu ngi ñoo jàppale naka ci gestu goo xam ne boobu lañ nekk di def piaro di ba ba tey rek mu continué di wax mbir goo xam ne naka mu ngi ci mbiru tukki bi surtout ba naka di jaare yoonu ginnaaw gi mu ne si jamono ji naka réew mi mi amangut ab luwa guy wax naka lu aju ci tukki jaare yoonub ginnaaw gi waaye naka am nañ luwaa jëmale ko naka ci mbirub daw làqu mu ne kon naka si fan yi ñu nekk gis nañ ne naka luwaa gu mel noonu ñu ngi ko yóbbu naka sa pencum réew mi mu ne am nañ yaakaar ne député yi naka nañ ko nangutoo pour mun ñoo jàppale ci liggéey goo xam ne naka ñu ngi koy def ba tey Pierre Rodiba continué di wax ne naka si jamono ji dañu war a lëkkaloo mu ne naka mu ngi ñaax askan wi pour ñu dooleel naka ñi nga xam ne ñooy Gambia Immigration Department pour ñu liggéey naka wàññi ndaw yoo xam ne naka ñoo dee tukki di dem jaare yoonub ginnaaw gi mu ne naka ne ñu ànd ñu yee naka suñu ndaw mi di waxtaan ak ñoom di leen dalal di leen xamal naka jafe-jafe goo xam ne moo nekk ci yoon wi mu ne saa yu nekk rek nañ leen di fàttali ne mun ngaa tekki fii nii te yi naka tukki bi lu bari naka la ëmb mu ne naka maa ngi oo ma naka nit ñoo xam ne ñoo nekk di yeewoo Foundiougne wala sax ci dëkkub Kaolack pour naka ñu lëkkaloo ak ñun taxaw naka seenum ndaw ñi jàppale ñu naka ngir ndaw ñi wàññi seen loxo ci tukki goo xam ne ñu ngi ko def di jaaree naka géej gi li nga xam ne naka mooy mbirub tukki bi ñi nga xam ne naka ñooy ndaw ñu nekkee ci tund gi ñoom naka ñu ci bari naka ñu ngi dem sa bitim réew dëkk yu mel ni Europe pour daandi seenub doole te ci yoon wi naka dañ dee am jafe-jafe gu bari mu ne ci am na ci ñenn ñoo xam ne sax dañ leen dee kidnappé pour gis ne naka ñu wax nañ seen waajur yi wala sax seen mbokk yi ñu yónnee leen xaalis gu takku nag dañ leen dee jaay di leen def nag ay jaam ñenn ñi ñu si ñàkk seenu bakkan am ñoo xam ne nag dañ leen dee rey am ñenn ñoo xam ne nag dañ dee dundee torox tànge ba kele bara ñuy génn àdduna ginnaaw jafe-jafe yooyu sax terewul ndaw ñu ba tey naka ñu ngi am éene pour gis naka tukki nañ wala sax génn réew mi ak yoon bi nu mënta tar ñoom nag pare nañ pour jaal boobu la yoon dem nag sa bitim réew pour mën a daan nag seenu doole Gambie bi ñoom nag ñu ngi jël matuwaay pour saafaraal jafe-jafe goo xam ne nag moo nekk ci wàllu diggaloo gi loolu tax na nag ñu lëkkaloo ak seenub àndandoo bu ci mel ni Geneva ñu àndandoo tamit ak ñenn ci seenub àndandoo yi si arjuma bi ñu am naka ab ndaje pour diggante wala sax fésal ab sarta gu yees goo xam ne nag ñu ko tëral pour gën a dooleel liggéey goo xam ne nag moo nekk ci wàllu diggaloo gi Gambie nag ëmpalewuñ ne seenub diggaloo gi sax liggéey gu ci nekk dañ ci dee jànkuwanteel jafe gu bari lëkkaloo si ak ñoom ak Gambia Immigration Department bi pour dooleel naka presse sarta gis ne naka dooleel naka mbirub liggéey gi bi ñu ko ngéntee ba tey kaaraange goo xam ne naka moo war a nekk ci wàllu sarta gi li nga xam ne naka mooy sarta gi tëraloon nañ ko ci atu 2017 waaye naka ñu ngi koy yeesalaat di ci yokk naka yeneen i sarta yoo xam ne naka moo koy mun a dooleel tamit mooy yëpp ñi nga xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci wàllu diggaloo gi nguurub Gambie bi naka ñoom ñu ngi wane seen taxawaay gu dëgër ak it matuwaay goo xam ne ñu ngi koo jël pour dooleel naka mbirub kaaraange bi lii naka ñu ngi ko wér ci satta goo xam ne ñu ngi ko tëral ci réew mi si atub 2019 tamit naka am na ci satta goo xam ne yes yeesalaat nañ ko ci atub 2020 dem ba ci atub 2024 lii naka doon na matuwaay goo xam ne naka dañ ko jël rek pour gis ne dooleel nañ mbirub kaaraange bi tamit diggaloo gi aar nañ naka nit ñoo xam ne ñoo yëngu ci wàllu dem ak dikk bi ompale wuñ ne naka mbirub digaloo gi mbir la goo xam ne naka dañ ko war a bàyyi xel ndax Gambie naka dafa dendoo ak yeneen i dëkk yu bari yoo xam ne ñu ngi ci tundub Afrique bi ñu ci bari naka dañ dee wax ne ci wàllub digaloo gi dañ dee daan naka ci kaw taqadat yoo xam ne naka ñoo fa nekk di liggéey tamit naka amuñu ay jumtuwaay yu mat wala sax yu baax yoo xam ne naka dañ koy jëfee loolu tax na naka ku ñu naan Abraham Mendy moom mu doon député permanent security bi nekk di liggéey ci ministre bu ñu dénk wàllu kaarange bi moom naka gaara na kàddoom ci ngeen def sarta bi na lii naka dina leen jàppale ci at yi ñu digmal ci liggéey goo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene def pour dooleel kaarange bi ci wàllu dëggaloo gi Ouleye Diallo moom mu doon député ci Gambia immigration department bi jaajëfal na naka nguuru Suisse bi ci ndimbal goo xam ne ñu ngi ko yàggaa isi seenub liggéey bi ba tey tamit madame di wax ne lii naka yokkute ngi yaakaar ne ñoom nañ maa ngi ko sànni wante loxo pour doole naka li nga xam ne mooy liggéey yëpp immigration bi Ken Isaac moom mu doon naka ku jiite banqaas bi ñu naan DICAF nekk si Banjul office bi ak ku ñu naan Mac moom naka mu bàyyee ko ci DICAF seen senior board management advisory bi ñaar ñi ñoom naka gaara nañ seen kàddu di wax naka njëriñum ndaje bi ak yokkute gu moo isil naka réew mi Gambia naka dox na dëkk goo xam ne naka dañu am jafe-jafe gu bëri bu ñëwee naka ci wàllu digaloo gi tamit naka am na ci yeneen dëkk yoo xam ne naka ñu ngi ci tund yu nekk di jànkuwanteel mbir yu mel noonu loolu tax na naka kilifa yi ñu dajaloo pour waxtaanee santa ak yenn matuwaay ñoo mën a jël naka pour saafaraal ko tamit wecci wante xalaat ci ni ñoo mën a saafarale boobu la jafe nga xam ne naka ñi nga xam ne ñooy Gambia immigration department seen liggéey bi naka dina yomb tamit nit ñoo xam ne naka ñooy jëfee mbirub dem ak dikk bi surtout ma naka ci wàllub diggaloo gi ñoom it naka nañ mën a taxaw seen bakkan aar naka lu aju si seen wàllub kaaraange gi mbokk yi ba tey ci xibaar yi lu toll si ñeent fukk ci ay nit ñoom naka ñoo dajaloo di yokk xam-xam tamit naka waxtaanee. yelleefu ñi nga xam ne naka ñooy liggéeykat yi nekk naka ci Afrique saw jant buñ ne liggéeykat yi naka mooy ñi ñoo xam ne dañ dee daan seen doole di liggéey liggéey yëpp kër ak yeneen i mbir yoo xam ne naka ñu ngi koy jëfee ñu ne tamit nañ waxtaanee si mbir yoo xam ne naka mooy mun a dooleel wàllub koom-koom gi mbirub dëkkuwaay ak wàllub aada gi bés goo xam ne naka boobu lañ mujjee daje pour ndar keppal ñaari satt yoo xam ne naka ñu ko tëral ñi nga xam ne ay taskatu xibaar leen banqaas yu taxaw a seen bopp ak it banqaas yu taxaw pour doole ne naka ñu ngi bàyyeekoo ci ay mbootaay yu am solo ñoom ñoo dajaloo pour wécci wante xalaat tamit waxtaanee sarta ak yéen matuwaay ñoo mën a jël naka pour dooleen nit ñoo xam ne naka ay liggéeykatu kër leen wala ñi nga xam ne naka ay fomp la ñu def wala ay raxas bool bu ñu sukkandikoo naka ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu ne gestu gi naka mu ngi wane ne ci téeméer bi juróom fukk ci atu 2019 doon na ñoo xam ne naka ay liggéeykatu kër leen ñu ne naka ci téeméer bi ñeen fukk ak benn doon na ñoo xam ne naka ay jigéen leen ñu yëngu naka ci liggéey bi góor ñi naka lu ci néew la ba tey tamit ñu continuer di wane naka ñi seen liggéey bi yu ci bari naka dañ leen di teg naka ay toroxtaange ba tey tamit report bi mu ngi continuer di wane ne ci atum 2018 lu toll naka si ñeent fukko ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay domestic workers doon nañ ay nit yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci biir réew mi te ñii naka ñu si bëri ay jigéen leen ci matuwaay googu naka Center for Research and Action on Economic Social and Cultural Rights muy bànqaas boo xam ne naka ñoom ñoo dee gestu mbir goo xam ne mu ngi aju ci wàllu koom-koom gi mbir bu dëkkuwaay gi ak it yelleefu aada yeeg cosaan ñoom naka def nañ ab gëstu pour gis ne doole nañ liggéeykat yoo xam ne naka ñoo nekk di daan seen doole ci tundu Afrique sowu jant ci matuwaay googu ku ñu naan docteur Fatima Diallo Guèye moom mu doon directeur ci Centre for Research and Action on Economic Social and Cultural Rights moom gaara na kàddoom di wax ne naka dafa bokk ci seen yelleef pour bés bu nekk di waxtaan ak askan wi di leen xamal naka yellee foofu ñi nga xam ne naka ay liggéeykat leen dañu nekk di daana seenu doole ba tey rek mu continuer di wax ne dañ leen war a yee tamit naka waxtaan ak ñoom wécci wante xalaat ci mbir koo xam ne ma mën a dooleel naka tund gi ku ñu naan Basiru Seka moom mu doon principal of labour nekk tamit économique si ministre bu ñu dénk wàllu trade bi moom nag gaara na kàddoom di wax naka njëriñu ndaje gi ak it yokkute goo xam ne naka boobu la moo isil ni ñoo xam ne ñoo dee daan seen doole Mister Seck ak continué di wax ne ñu bari ñoo xam ne naka dañ dee def liggéeyub mbindaan xamuñ naka seen bi yelleef mu ne looloo tax naka ñu isi lu waa gi pour gis ne waxtaan nañ ci ak ñoom xamal leen naka seen bi yelleef ak li nga xam ne naka moo aju ci seen wàllub dund ba tey tamit ñu continué di wax ne ñi nga xam ne naka ñoo dee def liggéeyub kër maanaam mbindaan doon nañ ñoo xam ne naka dañ leen war a xamal seen bi yelleef xamal leen seen njëriñ ci askan wi tamit si tund gi tamit naka xamal leen ni ñu war a doxalee seen diggante ak nit ñoo xam ne naka ñooñu lañ nekk di liggéeyal ku ñu naan aji aret tam fa mu taxawal fa Gambia Labour Union moom it naka gaaral na kàddoom di wax naka ñoom seen bànqaas bi dañ continuer di lëkkaloo ak kilifa pour liggéey ci yokkuteeb ñi nga xam ne ñooy ay mbindaan tamit naka liggéey ci li nga xam ne naka mooy seen yelleef kilifa yi naka ci dajaloo goo xam ne def nañ ko ñu ngi wane naka matuwaay goo xam ne boobu lañ fas yéene jël pour lëkkaloo ànd seen nguurub bi pour taxawu naka liggéeykat yi yi muy mbindaan yi tamit naka taxawu seen yelleef indi naka ay sata yoo xam ne naka moo leen di mën a dooleel ñuy yeleen tamit ci seen lu lef tamit xamal leen njëriñ goo xam ne naka boobu lañu am ci tund gi. mbokk bu ñu jógee ko ci xibaar boobu ñu dem seeti rek suñu xibaar bu mujj ñi nga xam ne naka ñoom ñooy Gambia Immigration Department ñoom ñooy lëkkaloo ak banqaas bu ci mel ni IOM lëkkaloo tamit ak banqaas bu FAO bi ñu ngénte naka ab bureau bu es goo xam ne naka ñu ngi ko def ci ab diggaloo bu nekk naka ci Bantanding Village nekk ci diwaanub Central River Region seenub bureau bu es bi naka ñu ne ñu ko dooleel ci wàllu koppar mooy banqaas bu ñu naan United Nations Peace Building Fund ñu lëkkaloo si ak Gambia Immigration Department matuwaay gi naka jël nañ ko rek pour gis ne dooleel nañ wàllub diggaloo gi tamit gën a dëgëral naka kaaraange bi te ñu ne naka naka samp nañ ko def nañ fa ay jumtuwaay yu doy yoo xam ne naka ñi nga xam ne ñoo nekk ci Gambia immigration department bi nañ ko mën a jëfandikoo pour doole seen bopp ci seen wàllub liggéey bi bureau yi naka am na ñeenti office yoo xam ne naka samp nañ ko fa am na conference hall ak staff quarters ku ñu naan Sarafin Wakana moom mu doon naka UN resident coordinator bi ci biir réew mi moom naka wax na ne digaloo yi naka bureau yoo xam ne yi lañ fa def dina gën a taxal naka tund yoo xam ne ñoom ñoo dajaloon tamit naka dina dooleel éene goo xam ne naka boobu la ñu am pour doole seen seenu bopp tamit lëkkaloo ak tundi pour gis ne liggéey nañ naka ci mbirub yokkute gi Sarafine Wakana ba tey rek mu continuer di wax ne ndaje goo xam ne naka am nañ ko ca Karoga doon na ndaje goo xam ne naka da gën a dëgëral kóllëre goo xam ne naka séq nañ ko ak nguurub Gambie bi mu ne tamit na dëgëral seen diggante ak dëkkub Sénégal ki ak ban bànqaasu United Nations System bi mu ne lii it la goo xam ne naka ñu ngi mànkoo pour def ko pour dooleel jàmm yaxanal naka mbirum liggéey gi ci wàllub diggaloo gi yaxanal wàllub dem ak dikk bi fit na indi jàmm tamit dooleel koom-koom gi ak tamit dooleel tund yi dooleel naka seenub aadam Dr Mariam John moom doon naka directeur ci Department of Strategy Policy and Delivery moom gaara na kaatam ci taxawaayu secrétaire général bi ak head of civil service bi naka dam di wax ne lii nag mbirub yokkute la bu ñëwee ci wàllu kaaraange bi mu ne te dina mën a tax naka immigration yi ñu taxaw naka mbir yoo xam ne moo aju ci wàllu daw làqu gi tamit naka jàppale xale yoo xam ne naka dañ leen di sàcc mbaa ñu leen di jaay taxawu mbirub njuujaaj ak lépp loo xam ne rek dafa aju ci wàllu fitna ci diggaloo gi ba tey rek ginnaaw loolu mu ne lii dina dooleel koom-koomu réew mi dina dooleel wàllum njula gi ak it yeneen mbir yoo xam ne dafay njëriñ askan wi Houlé Diallo Thiam moomu doon naka deputy director general bi ci Gambia immigration department bi moom jaajëfal na bànqaasub IOM bi ak bànqaasub FAO bi madame Diallo ba tey rek mu continuer di wax njëriñ goo xam ne moo nekk ci bile ndaje mu ne mu ngi jaajëfal naka immigration department bi seen bureau bu mag bi ci buntu goo xam ne naka ñu ngi ko ubbi pour gis ne jot nañ xibaar ak di génne xibaar pour jëflante ko naka seenub diggante ak askan wi surtout ma ñu nekk ci diggaloo gi mu ne am naa yaakaar ne bureau bi es bi naka lu ñu war a am la te naka la moo isi chief superintendent mi wuyoo ci Mamadine Diba moom mu doon naka police PRO bi moom naka gaara na kàddoom di wax naka li nga xam ne mooy yokkute goo xam ne mun nañ ko am ci diggalogu es goo xam ne naka esi nañ ko mu ne lii naka dina dooleel mbiru kaarange bi tamit naka dina mun a tax ñi nga xam ne ñoo nekkee ci wàllu woowu ñu tëdd nelaw seen xel mi dal commissioner Fodé Gassama moom mu doon naka ku jiite immigration border management unit bi moom mi naka gaar na kàddoom ci ndaje di wax ne lii naka éene gu mottaliku la te yi naka dafa bokk ci satta goo xam ne ñoom immigration department bi jël nañ ko pour liggéeyee ko ci atub 2019 dem ba si atub 2024 ñeneen ñoo xam ne gaara nañ seenub kàddu si ndaje bi ku ci mel ni Malam Bojang doon officer in charge si border bu es bi Fodé Bojang nekk di yeewoo ci dëkkub Tabandim village bi ak it ñeneen ñoo xam ne naka ñu ngi nekkee ca diwaan googu gaara nañ seenub kàddu di rafetlu bureau bu ES bi di ci wane seenub mbégte ak seenub kontaante mbokk yi liya doonoon xibaar yi leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata lii ngeen dis doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeen dog jàmm jërë ngeen ci topp bi wasalaam